أربعة نظمتها خوف اغترار الصدق في محبة الشيخ أبد ثم امتثال أمره حيث ورد وترك الانفراد مطلقا ولو بباطن عليه فيما قد رووا ومعه سلب الاختيار لحسن ظنه بلا إنكار فكل من جمع هذه الصفات من المريدين فيدرك الثقات mu ne melaw murid saadix ñeent la dama ko way fii nag ngir bañ taalibe bi waru